alors ni ñu leen ko doon waxee tey fii la ñuy des ci ndakaaru na euh, ndakaaru rawatina benn euh, village lébu dem fekk ji fa Abdoulaye Diop Abdoulaye ginnaaw ba mbala nuyoo ziar la ba noppi tey jile fan la ñuy ànd ak yow nga wan ñu ko fii ci ndakaaru waaw ñu ngi lay fay di nuyu aussi ñi nga xam ne ñu ngi ci plateau bi tey nag ñu ngi ci Wakaam ci benn ci quartier yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu ngi ci quartier bu ñuy wax Mbul mbul nag ñu bari dinañ ko dégg mais xamuñu fan la jógee moo tax dañuy ñëw rek doxantu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu laaj leen tur bi fan la cosaanoo. waaw ça va grand ça va yaa ngi si jàmm alhamdulilah waaw ñun dañ doon laajte turu mbul fan la cosaanoo. waa mbul nag xaw ma sincèrement lu muy firi dëggantaan xam naa mag ñi ñoo si gën a mën a am leeral parce que damay bañ a wax juum mhm. am na moo si jot a xam mais damay bañ a wax juum mhm. mais xam naa daal quartier cosaan la boo xam ne quartier Lébu la comme Mbul Taglu Sinca Bisor Léona ñoom ñëpp waaw. jërëjëf rafet nag kon xam naa ñu jéem a xooliwaat rek ñoo xam ne dinañ ñu mën a wax euh, ci cosaanu Mbul. xam naa dañuy continuer ji laajte ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii nii euh, salaamaaleykum. maaleykum salaam grand bi. ça va grand na. waaw ah, ça va euh, dañ doon laajte turu Mbul ndax xam nga fan la jógee. turu Mbul non turu Mbul man nag xaw ma Mm-hmm. mais mosoo laajte aussi jéem a xam ba xam fan la cosaanu. non déedéet mosuma kaa laajte. ça va grand na ngeen def. waaye sant bu wér kay. dañuy laajte mbul quartier bi fu mu jógee yow yàgg nga fi wala. ah man ñëw naa fi depuis 2001 mais daal tur boobu moom man dama judd fekk ka fi. Hmm. xamoo daal mosoo laajte aussi gëstu ci lan la jógee. non non mosuma laajte dégg naa daal mooy quartier bi fi jëkk daal mooy quartier bi jëkk am fii si Wakaam daal mos naa ko dégg quoi mais. fii daal tur boobu moom mosuma xam si exactement lan lan moo indi tur boobu daal. lan moo indi tur bi mosoo ko xam. waaw non non. waaw xaaral ñu jëm laajte salaamaaleykum. salaamaaleykum papa ji. na ngeen def. sant yàlla bu baax. waaw ñun de dañu doon laajte turu mbul ndax xam ngeen tur bi fu mu cosaanoo. non c'est dommage man dëkkuma fi ah <laughs> waaw soxla rek ñëw fi quoi. oui. <laughs> ok jërëjëf. ginnaaw ba ñu laajee askan wi lan mooy cosaanu Mbul dañuy ñëw rek ci ki ki nga xam ne mooy euh, chef de quartier bi ñu laaj ko rek euh, tur fan la cosaanoo. ñu bëggoon a xam euh, lan moo cosaanu quartier bi di Mbul. juróom-ñaari penc moo nekk Wakaam Mbul Taklu Sanc Gisoor Taklu. bulgu ah, bulgu nag ñaari bulgu la moo tax mu mel sët bu ñu ñëwee ci quartier mbu mbul tur bi lan lay firi ci ci lébu walla ci wolof ah, fii lébu la dafa nekkoon benn bloc rek presque tuuti ñu tudd ko mbul mu féeteeg cimetière bi féeteeg grande mosquée bi yooyu yëpp si mbul la ma koon mosuñ boole ko mbul. day mel ni booloo wala yu. ñoo bokk. kon daal bu ñu déggee mooy eh, li nga xam ne mooy mbul ci wàllu booloo ci la jóge ñu booloo seen lépp nekk benn eh, ci mu bokk ci penc yi nga xam ne aussi ci penc yi wakaam yi la bokk. suñ daa am baat boo xam ne baatu okaam la quartier bu ne dañ fa yéene ay nit pour ñu daje mbul nag dafa jafañoon seen kàddu ñoom. mais njaay yobal dafa nekk loo xam ne cosaan la maanaam dëggu moo tax ñu mel noonu moo tax ñu tudd ko mbuul njaay bugg a bokk leen dañuy xalaat mbuul kàddu mbuul daal bu amee rek ñu xam ne li ñuy préparé dina dina réussir. ñuy jaajëfal ki nga xam ni Baye Mbaye ndooy moo ñu ko doon expliquer di leen di jaajëfal yéen tamit ñi nga xam ne yéen a ngi nekk ci plateau bi ak ñi ñuy seetaan ñëpp di leen jox di daje ba beneen incha allah. incha allah merci beaucoup Abdoulaye Diop ak Yaya Diallo très rapidement benn minute moo ñu dese El Hadj Malick euh, Mbul ndax euh, man de wax dëgg yàlla xaw moo ni sax Wakaam am na quartier bu tudd noonu. Mm, Wakaam juróom-ñaari juróom-ñaari quartier la am. Mm. mooy juróom-ñaari penc yi góor gi doon wax léegi. muy Merina ak Mbul Guy Soor Taglu Bulga Sintia ak Rip ñoom ñoo fa nekk mooy yu traditionnel mooy yu traditionnel quartier yu bees yi mais quartier bu ci nekk aussi dafa am histoire parce bu njëkk comme ni ñu ko daan waxee mhm. euh, ci wàllu lébu yi bu fekkee ni dañu dem ba nga xam ne yow mu kàllaf nga ba am euh, benn âge bi dañ lay yebal fenn hmm, nga sanc foofu euh, bu ko defee itamit liñ ci gënoon remarqué mooy solidarité jàppalante mhm. boobu nga xam ne moom la ñu a fësal foofu ci mbul mais boo xoolee aussi c'est des quartiers traditionnels l'étroitesse des de nga xool ni nga xam ne noonu la village lébu yi village lébu yi en général noonu lay demee ay labyrinthe lay doon mhm. mais mbul buñ koy dégg yaa ngi dégg Massamba Anta mbul yaama mbul yaama <laughs> borom yatu xaalis borom yatu xaalis bi am na itamit mbul gu nga xam ne ma nga nekk ca Bawol am na mbul gu nekk mm. ca Kajoor loolu yëpp nag ay dëkk la yu nga xam ne mhm. dañu am taarix am histoire mais on a beaucoup appris ci li nga xam ne tey mooy mbul gi nekk ci Wakam c'est ça merci beaucoup merci Alaaji Malick di jaajëfal Abdoulaye Diop ak Yaya Diallo FM tey jii la ñuy dalal docteur Mamadou Ndiaye moom mooy directeur de la prévention ci ministère de la santé et de l' action sociale ñun ci ñaareelu pàcc bi dinañ euh, ànd ak